cant ak ngërëm ñeel na leen mbokk internet ñu ngi leen di ziar jàmm ci mbégte di àndaat ak yéen actualité leen di au vendredi tey nag euh, li nga xamante ne mooy jubbi de la semaine donc actualité yi doon loo xamante ne ñeel ne lool suñu mbokk internet ba tax na saa suñu leen ciy gën gëstu di leen xoolal li nga xamante ne moo gën a fës ci mim réew ak biti réew ñu daal di leen koy àndil waaye tey suñu actualité donc ni ñu koy defee saa su nekk naam day rax people waaye aussi tamit day rax li nga xamante ne moo di fait divers ki nga xamante ne nag mooy Abiba lañ koy ubbee Abiba bi nga xamante ne dafa doon ab ndaw donc yëngu ci li nga xamante moo jëm ci wàllu musique mais ça fait un bail ñu gëj ko gis sur la scène depuis que papa ji nga xamante mooy Job Isaac amee ay problème ba tey gëj nañ ko gis ci li nga xamante ne jëm ci wàllu musique ko photo ak ki nga xamante mooy doomam gis ngeen ko ñoo noonu ñoom ñaar ci mbedd yi ñuy daal di balaade wu ñuy euh, muy xamal ne soppee rek ne mu ngi waajal lu am am am solo Mandiaye Seck nag daal dinay defati doom fu le nga xamante ne mooy ca gis ngeen ko noonu ki nga xamante ni mooy rak ci Wally Ballago Seck di Alioune Seck daal dina ko di ko baatare ñu gis ne mbir mi daal xeex daal xeexu famille ndax gis nañ ki nga xamante ni mooy Mandiaye Seck depuis que mu fekk ki nga xam ne mooy Wally ji magam bi ñëpp ko daal di teg loxo waaye aussi tamit mu am lu euh, muy def li nga xamante ne mooy ab rivalité bu doy waar fële nga xamante ne mooy digganteem ak Sidy Diop ndax boo xoolee ki nga xamante ne mooy Mandiaye Seck ak Sidy Diop jubóowuñu euh, benn yoon daana Mésséré aussi itam daal dinay génn waaye aussi tamit euh, défendre ki nga xamante ni moo di sëñ Bass Abdou Khadre yemu ca daal di euh, recadrer ki nga xamante ne mooy Guy Marius Sagna ndax sëñ Bass Abdou Khadre kàddu nga xamante ne yëkkati woon na ko fi fan yi ñu génn di xamle li nga xamante ni moo di képp koo xamante ne dem nga ci géej gi képp koo xamante ne faatu nga fa euh, dafa doon loo xamante ne bàkkaar la boo deewee itam safara nga jëm mu doon ay kàddu yoo xamante ne Guy Marius nanguwu ko woon benn yoon waaye Gana waaye aussi tamit Gana Mésséré andi na ci ay leeral bu baax a baax daal di défendre xamal ki nga xamante ni moo di sëñ Bass Abdou Khadre Cheikh Maïb xalif général ak kullu ñasin itam daal dinay génn wax ci li nga xamante ne moo jëm ci émigré clandestine bi yemu ca daal dinay teg ab solution ci taabal bi pour bu ko defee rek nguur ñi daal di ñu koy jafe ndax dimbali ñi nga xamante ne mooy xale yi Adja Diallo itam gannaaw jooy naa jooy jooy ba kenn xamatul lu muy niroo lam ca teg lenn la ñeneen na ko génn na ko nit ñi génneel interview bi nga xamante ne def na ko fa muy waxee ne Adebayor baaxul ci kaw laal Adja Diallo nag jamono gi interview boobu dong lay ñaan ndimbal ñëpp génneel ko ko. Ndella Madior Diouf gannaaw ba mu nekkee woon ganu kakatar ci télévision Futur Média nee na Sénégal amul jigéen bu ñemee wujjee ak moom ndax man Ndella ku ko xamul dégg na ko ci jonge ak yeneen ak yeneen ak yeneen Ndella nag mi ngi noonu heure bu génnee def buzz waaye tey fii la génn ci Daba Ndiaye nag ni démb la woon mariage bi 30 millions yemu ca limousine yemu ca Paris Nord yemu ca iPhone 11 yemu ca ak terrain Daba Ndiaye nag gis ngeen ko noonu toute belle ak robe boobee nga xamante ne macha allah ñu koy ñaanal sëy bu baax barke waaye aussi tamit ak njaboot bu baax kel gis ngeen ko noonu image boobee nga xamante ne am na ci mariage yu Daba Ndiaye Daba Ndiaye VIP sañse borom 30 millions bi nga xamante ne jamono gii ni ko xale yi di waxee uttu na mbaacu ak sumbulu bàcci lii ba tey itam officiellement madame Omoro Ayo Balde itam daal dinay nangul Omoro jamono gi nag gis ngeen ko noonu nee na ko call mi madame ak ah, gis ngeen ko nag bal ba daal dina tàkk fële nga xamante ne mooy ca Gàmbi Omoro nag jamono gi nag mook Ayo Balde ah, nga xamante ne ñoom ñaar nag ñooy sëy di ma et madame Guèye di leen ñaanal sëy bu baax keel moo géej itam daal dinay génn di clash képp koo xamante ne joueur nga rawatina fi nga xamante ni moo di Sénégal nee na du ma seen moroom nee na ko li muy pèse ëpp na 130 millions de dollars ay kàddu yi moo la mooy géet nag moom jamono gi mën nañ jàpp ni mooy def buzz ci li nga xamante ni mooy réseaux sociaux bolom challenge yi Lamine Samba bal ba tàkkati na alxayri bi jibati na Lamine Samba ci ñetti soxna mi ngi noonu ñetteela ma ngi noonu toog Lamine Samba ñu gis ne semaine bi li nga xamante ni mooy célébrité yi mariage yi bari na lool Lamine Samba nag jamono gi borom ñaari montre yi xam naa da ciy teg beneen montre muy ñetti montre ni ma leen ko doon waxee sànq dot de trente millions Paris Nord sañse Daba Ndiaye VIP détrône les stars effectivement gis ngeen ko noonu ci sañse bi gis ngeen ko noonu Daba Ndiaye bu VIP sañse mu doon xew boo xamante ne xew bi ala doome la ñu koy ñaanal sëy bu baax keel waaye aussi ànd ceeg njaboot bu baax keel Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni le guide de la révolution pacifique daal dinay génn itam waxati lu am solo nee na benn yoon kii di Idrissa Seck ak Macky Sall wax li nga xamante ne mooy jërëjëfe Serigne Touba ndax Macky Sall kat bu ñu fàttane li nga xamante ne mooy baat boobee di jërëjëfe Serigne Touba mun nañu wax ni bokk na ci li nga xamante ne fal na ko déggatu ko nag benn yoon Cheikh Ahmadou Kara nag di xamle kàddu yi IGFM itam daal dinay génn wax ci li nga xamante ne moo jëm ab disparition boo xamante ne euh, koo xam ne ancien joueur international africain la woon nag jamono gi nag kenn xamul ci li mu nekk waaye aussi nañ gën a yaatal xool mbir mi lan moo ci xew am na lu louche ab déet wala waaw ni ma leen waxee woon sànq rek Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni gannaaw ba jamono gi nag dafa nekk ci ab liggéey yu amam solo la lépp rek ci jëmale ko ki nga xamante ni moo di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gis ngeen ko noonu mi ngi ànd ki nga xamante ni mooy Gana Messere koo xam ne kenn dootu ko présenté ci àdduna war ngeen képp ndax gis ngeen li nga xamante ne mooy 11 novembre bi fële ca Thiès en compagnie de Dakar Instant gis ngeen li nga xamante ne wax na ko fa ci ay projet yu amam solo mun nañ jàpp ni jamono gii nag Cheikh Ahmadou Kara ke Noreyni projet yooyu la daal di jëmbat waaye aussi tamit ànd ci Gana Messere a Kassa Samba ak ñeneen ak ñeneen incha allah dinañ gën a xuus ci projet yooyu nga xamante ne kookee nga xamante ni mooy ay euh, le général de Bamba ngi koy waajal ci lépp rek fas sant ki nga xamante ni moo di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Bijou Ngoné nak jamono gi mën nañ wax ni li nga xamanteni moy mooy buzz bi mom moko ko yor euh, li nga xamanteni depuis vendredi passé ñu bari ñing koy féliciter waaye aussi tamit ñu bari ñing ko doon ŋaañe ndax dañoo jàpp ne la fekk confrontation entre Paulish entre Ouzin Keita entre Jimmy Problème affaire ñank fayda la te bo xolé li nga xamanteni moy vendredi passé euh, li lolé nga xamanteni moy euh, confrontation bobu télé yi nga xamanteni ñoo doon def débat bu sérieux sax amuñu ko pour une première fois ñi gis confrontation tendance bi egg fo xamanteni donc mu nekk numéro YouTube mën nañ jàpp ni jour boobu sax li nga xamante ne am nañ ko ci YouTube c'est la première fois nag donc ñu jàppee ko mbirum ñàkk fayda waaye ñàkk na ñàkk fayda goo xamante ne ah, internet yi gis nañ ci seen bopp Sénégal gis nañ ci seen bopp donc comme li ñu wax saa su ne Sénégal bay wax ful ak fayda duñ la farata waaye boo waxee ci wàllu humour ñu jël ko def ko seen moomeel donc mën nañ jàpp ne seen moomeel lañ ko def ci li nga xamante ne moo jëm ci confrontation donc Bijou Ngoné réalise son record historique avec confrontation gis nañ ko noonu mu nekkoon confrontation boo xamante ne bari woon na lool lool lool lool lool lool lool ay polémique waaye aussi tamit nekkoon ab divertissement boo xamante ne nit ñu bëri ñu ci doon reetaan di feral seen xol actualité nag nii rek lay demee saa su ne li gën a fës la li du ñu fàtte aussi li nga xamante ne mooy people buzz ndaxte moo ciy xorom si saa su ne rek nii lay demee dañuy xool li nga xamante ne mi ngi leen di neex ñu daal leen koy andil li moo gën a fës ci actualité tey cant ak ngërëm ñeel na leen ba ëllëg ci talaata gi bu ko defee ñu xoolaat a wéyale di ànd ak programme mu ki nga xamante ni mooy Dakar instant nii rek lay demee jërë ngeen jëf ak ma gën gis leen ba pare foo tourné Dakar instant ngay gis. mais loolu ëpp na Dakar instant ca ah, daal gis naa seen caméra bi ni mu timi nii ne bëri na doole trop ba mënuma xool bu baax damay pis pis di pàcc pàccal maa ngi leen dama leen di suivre si page seen page YouTube daal. waa Dakar instant moom boo xoolee ñoom seen. day wane lool ndax chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire loo wax ci Dakar instant. Wow, c'est une première mais ni ma gisee Dakar instant faut prouver que Dakar instant ci kanam la jëm incha allah. gars ñu ngi koy suivre Dakar instant lan leen laay wax na gars yi dem abonné loolu bëgg si actualité ñëw leen si Dakar instant. ce que defee na trop macha allah. Mbacke loo wax ci waa Dakar instant. Wow, Dakar instant nag moom ñoom dañoo xew. ndax bañ naa ko chaque jour bu bu ma yeewoo information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci YouTube bi da ko xool rek. looy wax ci Dakar instant. mais jàmm. looy wax ci Dakar instant. Dakar instant dafi ngi instantané. boo yeewoo. moom laay seetaan. boo tëddee. moom laay seetaan. Instagram. Twitter. Dakar instant.